saa su ne ngeen di am ay xibaar ki jàngat uh, yu wér te wóor Ousmane Sonko ci fan yii di ñëw bu moytuwul dina daal di wuy jëwaat ca dikk li ko waral nag du leen lu dul Frédéric Nappel nga xam ne moom Ousmane Sonko mosoon na koo tudd ci benn discours am daf ko woon daal di porter plainte ok nag di Nappel moom daal di nañ koy déglu ca la dëggalee nag ab plainte am loolee mooy wane ne kon Ousmane Sonko du yàgg dara dinañ ko daal di convoqué ngir daal di koy laaj mu indi firnde ci li nga xam ne Frédéric Nappel moom la koy daal di toppee plainte am nag moom Frédéric daf ne Ousmane Sonko daa am ay ay kàddu yu mu yëkkati daal di koy teg ci ab ndoddam dem sax ba koy jiiñ ko ne moom mën naa jël bakkenu doomu aadama jiiñ ko itam ne ab tóob la dafa génnee ay information yoo xam ne c'est confidentiel daal di koy jox ñenn ci ay njegeñaaleem loolee moo waral moom Frédéric Napel mu daal di woon porte plainte loolee nag buñ deful attention yàgg dara dañ ci daal di convoqué ki di Ousmane Sonko waaye nag li ñëpp di daal di laaj ci mooy Ousmane Sonko moom plainte yi nga xam ne bindoon na ko jagleel maître El Hadj Diouf ak ñeneen loolee moo tax militant Pastef yi di daal di wax na ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko lépp luñ ko taxal rek justice daf ciy daal taxaw waaye bu dee moom moo porté plainte kenn du ko lijjanti loolee moo waral ñoom ñu ne kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa fees lool ci wàllum justice fii ci Sénégal ba tax na ñoom benn solution dong lañ ci gis muy résister ndax dañoo jàpp ne seen candidat di Ousmane Sonko lañ bëgg a xañ bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 te nag fii ci Sénégal kenn mënul imaginer ay élection daal di am Ousmane Sonko du nga xam ni constitution bi daf ko éliminer dès le départ ne que nul ne exercer plus de deux mandats consécutifs nar cee participer te bu boobaa du jur lenn lu dul ay jafe-jafe ci réew mi jàmm ak salaam la ñu wootee kiñ ko dénk jamono ji moo di le président Macky Sall kon na ci def kéemtalaay kàttanam te lépp loo xam ni dénkoon nañu ko ko mu delloo ko Sénégalais yi sans pour autant muy am xëccoo mu jaaree ci ay élections yu libre et démocratique waaye itam képp ku ci bëgg a bokk rek ñu bàyyi ji Sénégalais yi tànnal seen cinquième président de la République du Sénégal AGT News